soppi Seydi Hadji Malick loxo ca kaw xanaa ma fi xaalis ma fi xaalis moo tax moom da sax beneen dimension xam nga gileem du fees ci ci biiri béy maa la wax li te ñooru bukki du ñoo waaru béy ci suñu dem ki la sut yow ne ko joomi alaaji Abdou Hamid kan ca kaw la wax leen la muy garaaw garaaw taalib Maodo la góor gi Baba Jongo ca Podor la mi garaaw garaaw waaw wax leen loolu taalib Maodo la Let me get out, get out. حميد كم xam nga connexion partagé ah. partagé connexion ah. alaaji Maalik ko mas naa toog ak góor gi góor gi Abdou mu demee benn dëkk ñu wan ko benn kayfiyaat mu ñëw toog ak Seydil Haaji Maalik ne ko Maodo damaa gis ay fi yaa tuddiw ndax yor nga ko Seydi Hadji Malick jékki-jékki partagé ko connexion ci yàlla dóor bopp bi dóor loxo bi ci bokk bi ne ko xoola ca nday joor mu xool nday joor ne ko maa ngi ci waawan waaye maa ngi gis montagne Makka yi mu ne ko xoolal ci kaw mu xool ci kaw daan ne maa ngi gis malaaka yeeg asamaan ba juróom-ñaar mu ne ko xoolal ci suuf mu ne ko maa ngi gis juróom-ñaareelu suuf ci barke Maodo Maodo ne ko dóoraat loxo bi waa ji na ko la ma ko Maodo na ko woon connexion déconnecté naa la mi garaaw garaaw taalibe Maodo guddi Abdou Salam sama loo bi mu ñëwee ci waawan ne ana Maodo ñu ne ko tubaab bee ko convoqué dem na mu toog daan ne leen tubaab bi une heure de laa ko may su bàyyiwul Maodo lépp luy moteur dinaa ko téye la muy garaaw garaaw taalibe Maodo la mës naa ñëw di seeti benn mbokkam te war a yéeg ci terrain bi ñibbi bi mu jékki-jékki terrain bi klaxonné ñëpp naan terrain baa ngi dem mu jël benn tànk bi teg ci kaw terrain ci buntu bi fa la teg tànkam. gaa yi taal taal terrain bi bañ ma ngay discuter lijjanti la muy lijjanti ba pare gi teggi tànkam na taal leen gaa yi taal terrain bi tàkk ñu doog a dem te la muy garaaw garaaw الورى كمن نعمة المنصور وإليك في سائر الورى إذا ما بقى الأقوام يوما يوما إلى العلا يكون يكون إماما إماما في الورى والورى والورى والورى والورى والورى محمد منصور لم يجرى جرى gisul sunu xaal ku feebar mu seet la ku dee mu jaale la ku dogin mu jóg ku doon am koy sonal sëriñ lu muy gën a garaa tàndibe Maodo la xam nga ku ci des ku ci des xam nga kan moo ci des ku ci des xam nga ko ci des. gannaaw. am na soppey Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar na ko jox waa kër Serigne Babacar ku bëgg Serigne Babacar na ko jox do daw na fa may ku bëgg Serigne Babacar na ko jox do daw na fa may ku bëgg Serigne Babacar na ko jox do daw na fa may ku bëgg Serigne Babacar na ko jox do daw na fa may ku bëgg Serigne Babacar na ko jox